حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد ومن والاه أما بعد mbokki jullit yi sunu boroom subhaanahu wa taala ku bàyyilu xel la ci jikko ji nuy waaj a waxtaane muy al amaanatu mooy wóor wala doy wala kóolute loo ci mën a wax rek la mu safaanool mooy alxiyaana mooy ñàkk wóor wala koo xam ne doyul lépp luñ ko doyloo dana ca wor baat bii nga xam ne mooy amaana waroom xam-xam yi xamle nañ ko nee nañ jépp àq joo xam ne danga ko war a jooxe jépp àq joo xam ne danga ko war a jooxe xamal ne lu gàllu la ci sa kaw àq yi nga war a jooxe nag bokk na ci njël li nga xam ne danga koo warlul say soxna ak sa njaboot wala borub jaambur boo xam ne danga koo yore danga koo yoreel ay jaambur ndegam ña nga yoreel ëpp nañ kenn loola daa war ci yow nga jooxe ko noonu itam sàmm ko ñeen nag ci ulamaa yi nee ñu lépp loo xam ne alal la nga fegu ca lépp loo xam ne dañ la caa wóolu moo xam der la bob jaambur wala loo xam ne daa am worma te moo ne day amoon nga man-manu man caa àgg waaye nag dangaa fegu bu dee alal juñ la dénk la bu dee der boo mënoon a wax la bu doon worma joo xam ne juñ war a sàmmal doomu aadama la doonte dara doxu sa digganteeg moom ci laal ko waaye nag amaana tax na doo ko jege loo xam ne dañ la koo dénk itam nga fexe ba delloowaat ko kala ko dénkoon bu dee kenn la wala ña la ko dénkoon bu dee mbooloo lañ sunu borom yàlla ci alxuraan nee na yàlla de mi ngi leen di digal li nga xam dañ leen ci wóolu ba dénk leen ko ngeen delloowaat ko seeni woroom inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaati ila ahliha xudayfatu bnul yamaan mi faatu fanweer ak juróom-benn ci gàddaay ga ginnaaw bi ñu reyee seydina usmaan dafa nekk li xadis boo xam ne xadis bu yéeme la dane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mas na noo nekk li ñaari wax benn bi yàgg yàlla dogal na dund naa ba fekke ko gis ko beneen bi nag maa ngi koy xaar sallallahu alayhi wa sallam danoo mas a wax ne lii ñuy wax al amaana muy kóolute sunu borom subhaanahu wa taala daa mel ne ci njëlbeenug lislaam da ko mooñe woon xol yi moo tax ñam mooñoon seeni xol ci al amaanatu ba ñu xamee alquran xam sunna dañoo gën a yokk dañoo gën a dolleeku di nga xam ne moo di ak wóor waaye nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf noo mujj xibaar ne amaana day danañ dem ba jëmmi jamono sunu borom yàlla jële ko fi nee na bu ko yàlla jële ci àddina nag ci anam gii la ko fi jëlee mooy nit day tëdd di nelaw sunu borom rocc ci amaana ci xolam nga xam ne fa amaana nekkoon fa kóolute nekkoon te jóge fa day mel ne ab tomb moo fay nekk moo ko fay wut nee na mu tëddaat di nelaw sunu borom yàlla jëlaat la desoon akus néew ca xol ba nga xam ne day mel ne la fa des ab putentaan lay nirool jigéen ji doon dëbb ni loxo yi di futte wala sax yonente bi salaa sallam nee na mel ne tey boo doon dox fa kasaloo aw xal jeexit ji muy bàyyi ci sa tànk bi nga xam ne boo xoolee loola yonent yàlla Muhammad nee na putentaan lay doon bu dëgër boo xam ne day mel ne daa am lu nekk ci biir waaye boo xoolee dara du nekk ci biir sallallahu alayhi wa sallam wax ne da ngeen dem ba àgg ci jamono joo xam ne nit ñi bu ñuy jëflante ci wàllum njaay ku néew ngay gis ca biir ñuy jëflante ci wàllu googu muy ko muy am kóolute ku ku néew a néew ñu néew a néew ngay gis ñu am amaana sallallahu alayhi wa sallam nee na danañ dem ba jëmi jamono giirug lëmm da ngay dégg ñu fay tagg jenn jëmu naan kooka day ku wóor la nga xam ne daanaka doo am ku ko ñaareel sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne da ngeen àgg ci jamono joo xam ne da nga gis ñuy nawee nit ak góorgóorlu ci teel a xëyal ngir liggéey di ko naw ci ñaw gum ñaw ci mbirum àddina waaye nee na xol ba lu toll nekk fépp sal guuf ci ngëm yàlla nekku ci al amaanatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit mas na ko koo laaj mas na koo laaj ne ko kañ la bis penc yi taxaw alayhi salaatu wa salaam ne ko bu bu ñu demee ba al amaanatu jeex sunu borom yàlla yëkkati ko waaja laa di koy laajaat kenn la ci saxaaba yi ne ko waaw nan la ko yàlla sa borom di yëkkatee mu ne ko xanaa bu ñu demee ba àgg ci jamono joo xam ne lu nekk dañ koy jox ñu ko yeyowul bu dee ca jàkka ja ka war a jiite ngir xam-xamam ngir alxuraanam ca maamum ya lay bokk bu dee ci wàllu àddina ka war a jiite ngir maandoom ngir ak ragal yàllaam ca altoppe ya lay bokk buñ demee ba nga xam ne lenn lu nekk ka ca yeyoon gënoon caa yell duñ ko ko jox keneen lañ koy jox xamal ne loola màndarga la ci bis pénc woroom xam-xami lislaam yi dañu daan tagg jikko ji lool kenn ngi nii ci ñoom kuy wax ne wor day ñaari yëf rekk koy waral muy nit ku doyadi ak koo xam ne amaana ba mu yor daan néew foo fekk ku wor nekk li ko tax a wor nit ku doyadi la koo xam ne doyadi gi nekk ci moom moo ko yóbbee muy wor wala al amaana da caa yorut lu bari kenn ngi nii ci woroom xam-xam yi di wax ne yàlla day lu ne mën na koo xaare bis penc ba mu des ñaar ba ñett mooy nit ñu wóolu ko ci dara mu wor loola moom li ci gën a bari sunu borom yàlla mbugal ma dana ko wane fii ci àddina ak koo xam ne daa waroon a jokk ak meenam dagg ko wala koo xam ne dañ koo defal njekk mu xëy weddi ko njekk lañ ko defaloon lépp mu fàtte ko loola itam sunu borom subhaanahu wa taala du ko nige ëllëg mbokki jullit yi abu hurayra daana wax ne xeetu yonte bi sallallahu alayhi wasallam day ñaara fi njëkk a jóge muy kersa ak amaana loolu boo ko nattoon tey ci sunu mbokki jigéen ñi tey nga xool ñu néew a néew ci ñoom ñoo dese kersa kersa gi nga xam ne moom la jigéen daan am ñu néew a néew itam ñoo dese kersa ci sunu jamono ji nga xam ne luñ daan wax ci ab wurmbal tey ca penc ma lañ koy wax daanaka amatul lenn lu nit di am di am kersa ci wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teel naa yeete ci jikko ji wane ne dana fi teel a jóge lool moom nag am na ay anam yu bëree bëree bëri yoo xam ne da cay feeñ sunu borom subhaanahu wa taala li nga xam ne da koo farataal ci jaam bi muy ponki lislaam di julli ca waxtu wa te mooy di joxe azaka boo xamee ne am nga ci alal lu ko mate di dem màkka su fekkee ne am nga ci alal lu ko mate am ci wàllu wér-gi-yaram loolu yàlla dala caa wóolu waaye li ëpp ci doomi aadama yi loola dañ koy sànk julli léeg-léeg duñ ko wax ci duñ ko def ca waxtu wa buñ ko dee def ca waxtu wa itam léeg-léeg duñ ko joox jooxe ni ko yàlla sa borom santaane joxe azaka itam su fekkoon ne teg nañ ko ci aw yoon jàpp naa ne ñu néew a néew ngay gis ñii ñoo xam ne dañuy yalwaan wala dañuy aajowoo ndax Omar ibn Abdul Aziz kat bi mu yilifee jullit ñi lu man ñaari at ak genn wàll rek amatuñ kuñ jox asaka dem nañ ba jullit ñi kuñ ci jox asaka amatuñ ko te loola lépp teg ko ci aw yoon na ko yàlla sa borom santaane la kon li yàlla sa borom farataal ci jaam bi muy ay julli juróom di ponki lislaam yi lu ci bëree bëree bëri ñu bëri ci doomi aadama yi sànq nañ ko noonu itam kóolute yi day am ci wàllu alal baraana koo xam ne teg nañ alal ju bëri ci loxoom ñu doyloo ko wóolu ko ca waaye doo def lu may rek mu jekki-jekki sànq lépp ñu bëree bëree bëri bëri tey buñ doon gis ñi nga xam ne dañ leen a yoreel te nangu leen a fay kon day daanaka jóge nañ ca xaala bañ nekk situation bañ nekk ba jàllaat ci beneen waaye am na ñoo xam ne jamono bi ji ñi lay leb sax xaalis li nekk seen yéene mooy doo leen gisati am na ñoo xam ne jamono ji ñu jëflante yow ci wàllu xaalis lii seen yéene mooy foo ñuy jaar ba dootoo xam ba xam jëflante nga ak ñoomam déet am na ñuy sax ñu mën a ñëw taxaw ci sa kanam ne la yoreel nga ñu nanga yoreel nga ma nangam to yoreeloo leen dara kon buntub amaanatu ci wàllu alal moom moo ci gën a doy waar ndax alal yàlla da ko bëgg loo doomu aadama yi wa tuhibbuna al maala xubban jamma yàlla giñ ñu ci alxuraan ne doomu aadama ni mu bëgg alal dafa ëpp wa innahu li xubbil xayri la shadid loolu moo tax ñu baree bare bare li leen di dal ci àddina foofu lay jaar noonu itam al amaana ci wàllu der ñaata doomu aadama ñooy toog di wax ci seen mbokkum jullit loo xam ne jaaduwut der yi moom daa mel ne amatul ak ñoŋ daa mel ne benn der ñoŋatul amul kenn koo xam ne nit ñi ñéeg lañu ñéeglu nañ ci wax ci yow dara daanaka bu dee bu dee diglu rajo yi wala ngay topp réseaux sociaux yi da nga yéemu ci suñu borom subhaanahu wa taala buntub der moom amatul lenn lenn lenn loo xam daanaka lu ca doomu aadama di jomba wax la lu jëm itam ci wàllu yaram doomu aadama aw yaramam dañ ko caa doyloo nay lekk loo xam ne du yàq aw yaramam nay naan loo xam ne du yàq aw yaramam waaye itam ni mu fonke yaram wi ba lépp lu muy lekk ak lépp lu muy naan di ko seet noonu la war a fonke diineem ba lépp li dugg ci xolom bàyyi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat ab oto bu fekkee ab tubaab da koo liggéey ne ah oto bii kat oto essence la boo demee taxaw ca station ba doo ca def gasoil oto bi bu fekkee ne tubaab bi daa wax ne oto essence la doo ca def gasoil bu ne oto gasoil la doo ca def essence doomu aadama xolom bi ab moteur la boo xam ne moteurub suñu borom yàlla la ni nga xamee ne liy dundal aw yaramam yàlla day wàcce am ndox saxal gàncax kenn kuy lekk ay xeer amut amul kenn kuy tiim ab jalu suuf di ca lekk amut li yàlla saxale ci gàncax rek moom mooy dundal sa yaram wi noone itam li wàcc ko wàcc jóge ci yàlla jóge jaar ci jibril ñëw ci yonente bi salaa salaam rek moo war a nekk sa diine moom nga war a dunde moo tax raditu billahi rabban wa bil islaami diina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula kàddu la goo xam ne gu mat a bàyyi xel la mbokk jullit li jëm ci wàllu xam-xam tey jii al amaana da caa jóg baraana koo xam ne fa mu toog poste ba mu toog la mu wax ne moom la yor ci xam-xam yoru ko diplôme yi nga xam ne moom la wax ne moo ko yóbbu foofee diplôme yooyee da koo kooj da ko kooj am na ñoo xam ne fa ñu jaar ba am diplôme sàngam bu leen di teg barab sàngam sax dañu koy kooj al amaanatu daanaka xaw naa jeex da ngay gis nit koo xam ne diplôme sàngam da koy lijjanti jënd ko am ñoo xam dañuy jënd ay doctorat ñeneen ñi di jënd nangam ngir rek bëgg aw tur nga xam ne ci wàllu xam-xam sax daanaka lu jëm ci wàllu al amaana amatu fa noonu itam ci wàllu pal da ngay gis koo xam ne day xéntewoo di ngéejoo jot ci am réew te moom ci boppam xam na ne attanut am réew daanaka ak kërug boppam sax xaw koo mën a yilif waxuma laa ne di yilif ay doomi aadama yoo xam ne nit ñu baax ñaa nga ca biir awliyaaw yaa nga ca biir asaalixoona nga ca biir nit ñu tedd ñaa nga ca biir loolu lépp du ko bàyyi xel bokk na ci al amaana day feeñ ci wàllu shahada nit dana ñëw di seede loo xam ne wóor na ko ne du dëgg ngir rek am lu mu ciy séentu mën naa am ka nga xam ne moom lay seedeel day koo xam ne am na lu mu yaakaar ci moom suñu borom yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla saa yu ngeen dee taxaw di seede na yàlla dong tax kunu qawaamiina bil qisti shuhadaa lillah donte seede si day dal ci sa kaw walaw ala anfusikum donte ci sa ñaari waajur lay dal ñoom defut yoon awil waalidayni donte ay jege ñaale lañu wal aqrabiin borom bi nee na bu fekkee ne ki nga nar a seedeel day ko am xaalis wala muy ko ñàkk nga bëgg a wax ne daa ma daa ñàkk dama koy yërëm wala nga ne daa am dama koy bàyyi xel borom bi nee na fallaahu awlaa bihima yàlla moo gën a yey nga bàyyi ko xel ci ñoom ñaar ñooñi. wàllu bind itam noonu la demee am na ñoo xam ne li ñuy xëy di bind rawatina journaliste yi wallahi danañ bind loo xam ne ñoom seen jëm bopp xam nañ ne li ñuy bind du dëgg ñoom seen jëm bopp xam nañ ne li ñuy bind du dëgg di waxal nit loo xam ne lu ne weng nga lay doon te dara du ca dëgg te nga xam ne seen tuwoo ca lu may rek loo xam dañ la ko cay jox seen tuwoo ca lu may loo xam ne danga koy dundale sa njaboot sa doom di ca dund sa soxna di ca dund waaw googu dund moom ñooña ana na la ñu mel sahaabiyaat yi taabi taabiaat yi dañ daan wax seen i borom kër bu njëkk ba lislaam di lislaam borom kër day bëgg a génn soxna si langaamiit ne ko ah nun kat nu muñ cib xiif ba dee moo nu gënal nuy lekk loo xam ne daa araam bu nu fi indil ci kër gi mukk loo xam ne léwut loolu soxna daanaka wax borom këram waaye tey jii daanaka lépp loo waaye indi rek moom kenn séggatu ca dara dara dara dara noonu itam ci wàllu mbóot tey jii koo xam ne wóolu nga ko ci wax ko sa mbóot da ngay jékki-jékki rek gis mbóot mi ci pénc mi te mbóot moom bu tasaaroo moo ko bu yéene bu tasaaroo ñoo yem wallahi léeg-léeg nga doyloo kenn sax ci sa whatsapp yu xew yii rek yónnee ko ay kàddu doo am lu may jékki-jékki diggaat kàddu ko feneen maanaam lu jëm ci wàllu kóolute lu jëm ci wàllu ay mbóot dafa mel ne doomu aadama su ko tee day mel ne dafa mel ne dafa am lu koy lakkal kon li ñuy wax al amaanatu daanaka xaw naa jeex noonu la amee itam ci ar risaalaat nga gis koo xam ne day jàng sonn ca njàng ma lool ba mu dalee jàng ba léegi li muy jàng lépp alquran la la muy jàng lépp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam la waaye ba mu demee ba nga xam ne micro dong nga ci des ma ngay sóoraale ci biir ñi muy waxal mbaa du ma wax nangam nangam xew mbaa du ma wax nangam nangam xew moo tax yàlla day wax ci alquran ne ñi may jottulil te ragal ma man dong alladina yuballiguna risalatillahi wa yaxshawnahu wala yaxshawna ahadan ila allah ñu bëree bëri ci waroom xam-xam yi nga xam ne si ay waroomi xam-xam lañ leen di tuddee sax laay mën a wax lu bëree bëri ci li nga xam ne ak réer am na ca tey jii daanaka ñu ci tabal doomu aadama yi loola ñàkk amaanatu la mbokki jullit yi al amaanatu lu doy waar la loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lam ca waxoon rek mooy la ca am moo tax xudayfa nee na man day dem naa ba sama jamono ju mujj damaa dund ñaari jamono jamono ju jamono ju njëkk ja bu may jëflanteeg ni du ma xool sax kan la bu dee ab jullit wóor na ma ne ngëm yàlla gi nekk ci moom dana tax bu ma yoreelee benn dërëm dana ma ko delloosil ca salafu saalix gis nañ ci ku tëj ab butigam fukki fan di wër ku mu war a delloo ab diinaar ba yàgg mu dem wuti ab yéenekat bu ko yéeneel ci dëkk bi naan bi sàngam bi sàngam nit ñëw na ci saa place ma jëflanteeg moom yàlla dogal maa ngi ak ab diinaaram boo moomut jëmmu joojee ba ay nit ñëwee naan ko waaw loolu waru laa yàqal tijji sa boutique bi dane aha kay ñemewumaa tijji sa boutique bi di jëflanteeg doomu aadama yi te fekk ab dinaar bu mu bu mu moomu da cee nekk xoolal jamono joojee ba ñuy dund lislaam Xudayfa nee na damaa dem ba ci saa mujjug jamono nag diw ak diw dong laay jëflanteel diw ak diw dong laay jëflanteel te ma nga faatu 36 ci gàddaay gi la faatu loolu li muy tekki kenn gënu koo xam doomu aadama yi rawat na ñu nekk ci marché yi kenn gënu koo xam doomu aadama rawat na ñu nekk ci ab jëflante jëflante doomu aadama yi wor yi bari na lool lool lool lool ñàkk kóolute yaatu na lool lool waaye ànd ak li ñàkk kóolute gi di di di yaatu lépp yàlla na yàlla boole ci ñu wóor yàlla na sunu borom yàlla boole ci ñu wóor bu ëllëgee yowmal xiyaam bu nu yàlla xisaab yàlla bu mu nu xisaabeel yoreel nga diw sàngam yoreel nga diw waxoon nga diw sàngam waxoon nga diw sàngam loolu yàlla ci yàlla sa borom musal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin